Ndella Madior moo ma fenal tey awma ci lu ma métti Ndella woo nga naag ci guuxum soow partagé leen vidéo bi ma ni Ndella Madior naax ci guuxante nga wóppal ci guuxum soow duma la bàyyi ndax dama nekk ci dëj nga bëgg ci profito yow humiliation yi ñu la def ci réseaux sociaux yëpp nga bëgg a profité ci man pour laver ton honneur Ndella Madior dangaa tay xoolal da nga tuuti pour manipuler ma man samay émotion dama nekk ci dëj ma nekk ci dëj annoncé ko samay équipe ne ma nañu bàyyi ma décidé ni damay jël période de deuil mais période de deuil boobu bu teree Ndella Madior ma tontu la parce que yow ndeke fenkat nga yow ndeke fenkat bu mag nga Ndella Madior maa la wax lii te li ngay jaay amul lenn loo may jaay man mu saf ma Ndella Madior damaa ne sa live boo ko coupé nga ñëw déglu tontu bi ma lay tontu parce que man du ma la xaar sax du ma xaar ba dëy bi pare parce que lii devoir d'état la ma lijjanteeg yow lii fen yi duul yi nga ma duulal léegi duul yi tooy xepp yi xaw ma kan ngay duulal di rëcc Sada bu la neexee nga fenal Sada Kane bu la neexee nga duulal Sada kooku dafa tolluwul ak yow bay wàcc di humilier boppam waaye man Françoise Hélène Gaye boo ma fenalee ma toog ci tooy fi nga fi nga ma lijjanti ko parce que man man cherche rien la toute façon partagé leen ma vidéo bi mënuma partagé parce que damaa talul nee la maa yow damaa bind ñëpp xam ni dama am dëj bu métti ñëpp xam ni dama am dëj bu métti ndee la maa ma ni dama génn ci Facebook bi je le temps ma jooy sama frère nga ni yow comme un amoo dignité xaar ba ma toogaat di publier sama mur parce que gis nga ni que ku xam Françoise xam ni bés bu nekk lay publier pratiquement sama mur dama koy animer pratiquement vingt tout le temps chaque jour ndee la nga xaar ba ma ne selew nga dugg lañu la togoxal ci réseaux sociaux yëpp nga ni tey Françoise Hélène Gaye laa koy yëg waaye dangaa tuuti yow xajuma si yow si yow maa xajul ci yow ndee la maajoor te boo ko weddee maag yow ñu jëm ci te jagul ngay tàppet taxul ngay tappet comme dangaa sumb na nga fexe ba mu mët ndee la maajow yow ku mën duul nga dangaa mën fen benn fen bi nga ma njëkk fenal mooy lii Ousmane Ba boobu laa njëkk a relevé ndee la maajow Diouf dangay benn bii Ousmane Ba ci dossier Ousmane Ba fen nga ci dossier Sonko fen nga ci ndee la maajow ba ngay attaqué Ousmane Sonko dangaa bàyyi ba ñu attaqué Ousmane Sonko ba ñu déblayé terrain bi mee dee la nga bëgg ci ne saraax opportuniste te attunoo li ñu attan ñun ndee la maajoor tey laa lay live ba nga xam ne yow mënoo live mënoo wax réewoo dangay tu ndee la maajoor réewoo danga tasee gul ku réew yaa ngi doog a daj danga danga tàmba di xal ay nit kaay ma wax la ni man duma bokk si ñooñu ngay fooyee duma saada kan duma say façon nit yooyu ngay jël di leen toroxal ndee la maajoor damaa bëgg nga ni taj nga toog da ngay live yow da nga ne da nga yow ay rajo mais yow da ñëw rampe sama gannaaw ba ñu dugal la ci réseau yi da nga rampe sama gannaaw neexal ma tribord babord ndee la maa joor maa la bloqué parce que du ma ànd ak ko amul di du ma ànd ak ko amul fula du ma ànd ak nit ku warul ndee la maa yaa fi taxaw jël sa doom def ak sa jëkkër sa papi doom def ko loo xam ni mënuma ko supporter ma ni la ndee la maa joor loolu lay njëkk wax est-ce que xool nga li nga def pour l'avenir de ton enfant yow Ndella Madior nga taxoon naan ñaññaññañ wut yow dama la soxla kan moo jël moo wuti moo ma mag yow man réseaux sociaux dama la soxla wala Sénégal dama la soxla dama la soxla dangaa mën a dox sama mayen nga ñëw di jéem dox mayenu nit ñi nga bàyyi ba mën a joor ak xale yi xeex ba Sonko ba ñu déstabiliser Sonko nga xëy fële jóge fële ak sa opportunisme taxaw yow xoolal man depuis kañ laa laayval Sonko ak yow ban nga door a ñëw ban jour nga dugg ci xeexu Sonko bi parce que tu croyais que le boulevard était clair tu peux maintenant t'engouffrer Macky Sall daal la woon ne ah am naa am naa mbëru mbër bu may xeexal Ousmane Sonko te attanoo li doo xale Ousmane Sonko yi di liggéey attanoo ko nga daw dem jébbalu yaa dem ba ñu lay tuddee taalibe loolu du man maa la ko def dañ la saaga attanoo ko ba ngay dugg ci xeex bi xamoo xeex bi nu muy demee Laetitia ma puce maa ngi yow a yem jikko on se parlera après maa ngi yow a yem jikko xam naa loolu moo tax ma teel a moytu mag yow ñuy ñuy daal ñuy ñu mbëkkante ma ni ndee la maajoo juuf dama bëgg nga toog xoma ndax sutu buur nga waaye bu dee sutu buur nga tamit buur sin kon juuf na doom bu ñàkk jom dangaa bëggoon a xeex ayca xam nga am nga sama téléphone maa lay woo ndee la woo naa la lu ma dix fois pour nga dugal ma sa nga daw ndee la maa man doo ma koy pal koy bal koy foowee man duma saada kan duma golo ya ngay xeexal ñu ak kilifa yi ngay xeexal ñu bañ la tontu man direct man direct ndee la maajoo jow direct laa koy tontu bàyyi leen ma parce que damaa am dëj bind sama mur ne damaa am dëj ndee la maa ne boulevard bi léegi na naas pour opportuniste kele opportuniste que tu parce que j'ai un décès tu profites de du fait que wax naa ni am naa décès nga toog démb ba léegi gisoo ni bind naa dara sama mur nga ne kii kon léegi naa ci profitoo kaay wàccal toogal toogal déglu ma Ndella Madior man damaa xaj ci yow man maa xajul ci yow Ndella da man nawlawuma la moo tax ma bloqué la du yow yaa ma bloqué maa la bloqué parce que nawlawuma la Ndella Madior nawlawuma kuy toogaxal doomam nawlawu ma koy koy bazarde avenir u doomam pour ay vue Facebook man nawlawu ma jigéen juy dama ne may leen ma ko moo ko wut tu l'as cherché maintenant tu m'as trouvé Ndella te pareegu ma ci yow lii introduction rek lay nekk Ndella Madior dama ne dama bëgg nga toog gënoo ma nekk séeréer dama dugg man duma tappet te yow tappet nga dañ la fi saaga kan moo bëgg ñu saaga ndey mais yaa dugg jël combat attanoo ko daw yaa jël combat attanoo ko daw mani xolal ñooñu lañu la def ñu bëgg ma ko def man ni leen du man dee Ndella Madior maa ko wax tey maa ko wax ëllëg te du question wu ay di ma man mënuma comparer sama bopp ak yow da nga bëgg ma dugg ci dossier yi gars yi bañ yi tam nga woon dossier yooyu yëpp nga sama loxo mais du ma dugg ci loolu tey dama lay may une chance dama lay may une chance parce que man sa wutum buzz maladif bii c'est pas à mes frais song nga fi ñoom kon koddu Mouhamed Cissé songu ko fi Maman Dieye ñooñu xeeb la parce que wax nañ dëgg parce que fii du seen champ de prédilection mais man fii nga ma fekk ci réseaux sociaux yi topp ci man dugg samay réseau moo jaral moo la jaral dem seeti Assane Diouf xoolal yaa fi jóg dem seeti Assane Diouf te dangaa mën fen Ndella Madior yow ku mën fen nga Ndella Madior yow yaa dem seeti Assane Diouf ñëw oote pour am buzz Ndella Madior bu dee dangaa am des trous au cerveau wala dafa li ngay jël moo fort li ngay jël bu dee dafa fort ba xamoo sa bopp dama lay fàttali ni que yaa jógee seeti Assane Diouf toog live ko wax ni que Assane nee xamul Ousmane Ba léegi nag wax bi jël nga ko wëlbati ko waa Françoise moo ma jaxaseeg Ousmane Ba xanaa balaa ma lay jaxaseeg Ousmane Ba may wax ak Ba Ndella moi je ne parle pas avec Ousmane Ba j'ai jamais parlé en privé avec Ousmane Ousmane Ba maa ngi jotee ak Ousmane Ba mu live ma dugg ci live am benn yoon te fekk ni nga may fenalee nii la ma doon fenalee moom. ni nga may fenalee nii dee la noonu la ma Ousmane Ba fenal mais moo la ëpp courage parce que yow dama la woo dix fois jëloo woo naa la plus de dix fois man ku ma fenal yenn say direct bu fekkee xoolal xoolal bu fekkee ma sawar dangaa am tombé malchance tey journée bu ma sawal ak ma sama sama dëj bii nekk lu nekk góom sama xol ma ne kii dama koy woo wax nit ñi nan la mënee fen ndee la woo naa la plus de dix fois nga bañ a décroché tey sama numéro yaa ngi koy xool maa lay woo ngay xool sa téléphone ñemewoo ma décroché ba ma décroché woon tey Sénégal yëpp xam ban façon fenkat nga parce que dama lay tiiñal j'ai même pas aw sa jot ndee la maa joor soxlawu tekki lenn Sénégal moyen yooyu nga am booba léegi nga nekk ci ci ci euh, nu mu tudd foofu nu mu tudd seen politique bi su ma moyen yooyu su ma jëloon un quart moyen yooyu tey maa ngi nekk président de la république député sax mënoo koo nekk booba léegi ndee la maa jox looloo tax ma yërëm la boo ñëwee ma lay partagé ndee la yaa mën yaa ñeme kàcc yow ku ñeme kàcc nga ku ñeme kàcc nga ndee la yow man Ousmane Ba musuma wax ak moom téléphone parce que nopp bi baaxul booy wax ak Ousmane Ba sax dalay ne bindal te benn yoon laa bindanteeg Ousmane Ba mooy ba mu ñëwee moom mu feneel ma bind wax ni que damaa dem APR deuxième non deuxième fois bu ma bindanteeg moom mu damaa dem APR mu bind ma inbox ne ma bul réagir dama lay liggéeyal ma ni ko ban façon liggéey nga may liggéeyal nii ne ma bul réagir bind naa sama mur ni dangaa dem APR mais affaire la dama lay defal bis dama am dama lay liggéeyal ma daal di coupé téléphone ba ma coupé waxanteeg moom noonu euh, ci bindante bi noonu ba ñu arrêté bindante je suis allée faire un direct direct boobu site internet yépp ko reprendre site internet yi yépp xawma Théodora si tu veux rester dans ce live si tu veux écouter mes lives tu arrêtes la connerie que tu viens d'arrêter tu l'effaces tu comprends tu arrêtes parce que Sonko ma dara tooñu ma ko ay militant Sonko ñoo ma tooñ ma taxaw jàkkarlook ñoom moom ay militant Sonko dañ koo tooñ saaga ko ba mu tooy xet mu dem jébbalu ji ndax kooku ña ña dem waxal ñoom dañoo ne que dafa sukk jébbalu mani ne Ndella Madior tu vas pas manger piment dans ma bouche tu pipon piment avec ma bouche Ndella Madior ëppoo ma audience duma fay un franc Ndella Madior Diouf duma fay Facebook te yow dangay ngay fay comme ñeneen ñi nga doon dénoncé damay jàkkaarloog yow wax la dëgg ndee la maa joog jotewu maak yow dara ña la towaxal xam nga leen tu as voulu defe ni sama dëj déey bi ma nekk nga bëgg ci profiter pour yàq sama del pour tilimal ma yow xanaa dangaa fàtte kuy Françoise ndee la maa joog da nga da nga ma desee xam effectivement on s'est fréquenté très peu tu m'as connu très peu Ndella Madior man mënoo ma manipuler mënoo ma yóbbu Ndella tu as dit que tu veux faire une alliance tu vas réconcilier les femmes des réseaux sociaux mais yow dama ëpp taxawaay ba nga xam ne yow dangay ñëw jël ay décision dem wax ak ay nit ni ma Françoise kay topp ci ba ngay live laa dugg sa live ne la Ndella Madior damaa bëgg seen yëfu seytaane yi ngeen génne ma ci génne ma ci seen yëfu saytaane yi parce que lii c'est pas sincère tontu woo nga jël benn stratégie ñu toroxal la sa n'a pas fonctionné nga del attaqué sa jëkkër boobu tam fonctionné wul nga xëy daal di ko daal di ne oui euh, maa ngi jéggalu daal di jékki-jékki ne je reprends les armes yooyu sa sa sa say say affaire la sa problème bu bopp la ndee la maa du man Françoise nga koy sippi say échec sa médiocrité en matière de communication du man nga koy sippi sa médiocrité en matière de politique Ndella Madior du man nga koy sippi parce que musuma wax ak Ousmane Ba ba tudd ma maak Ousmane Ba direct la wax directam woote direct Ousmane Ba laa woote direct Ousmane Ba laa woote fekk mu may fenal comme yow ni nga may fenalee nii en direct ma woo ko mu am courage yu jël ma mais yow amoo courage yu jël ma parce que dama la woo Ndella woo naa la plus de dix fois te dinaa ko posté laa sama répertoire ndee la yow dama la woo plus de dix fois nga naan waaw nañ jëpp jaar jaar leen ci yoon bi jaar leen ci yoon bi yow nee nga da ngay clarifier man nga titre man nga bëgg a waxal ma dugg ne la ma nga ni ma non demal demal nañu jaar ci standard bi waaw ku bëgg a wax na jaar ci standard parce que ci parlais de mois auditeur u ndee la damaa bëgg ngeen xam ni maa tax mu doon wax ni ma tax mu doon wax ni na ñëpp jaar ci la voie classique voie classique du ma fa jaar parce que danga ma doon woo ma lay woo ñuy wax su ma la soxla parce bu ne loo def nga yónnee ma ko sama inbox pour ma fësal la ko donc du ma jaar ci voie classique parce que mag yow ñu sekkuñu subordination mag yow y a pas de relation subordonnée man amul koo xam ni tey man dama am ak moom relation de subordonnée fii nga jël sama tour ndee la bëgg a buzz parce que Françoise Hélène Gaye ku bëgg a buzz Françoise ngay wax ndee yow mosuma la tudd titré wu ma la sama page musuma jël bind fa Ndella Madior je vais parler avec Ndella Madior mais xam nga ni boo bindee Françoise Hélène Gaye ngay waxal nit ñi ñëw déglu la parce que épuisé nga le filon Sada Kane épuisé nga filon Sada Kane épuisé nga filon euh, euh, maanaam Sonko ça n'a pas marché Ndella nga ñëw daal di ne Françoise oui naa jël Françoise Hélène Gaye parce que Françoise Hélène Gaye boo waxee ni ci moom lay wax ñëpp daal di ñëw Mais tu es tombé bien bas. Mais tu es bien bas, Ndella. parce que Françoise Hélène mii ngay waxal amuma woon jot sax live la boo ma jëloon dama leen xoolal dama tàyyi woon live la Ndella ndax damaa gis nga attaqué ay yoo xam ne samay moroomu élève la ñu samay collègue élève ñu tàyyi la tontu man dama woon sama team duma wax ak Ndella Madior mais damaa dugg fen yi foog fen yi nga doon fen ñoo foog moo tax ma dugg nii Ousmane Ba musuma wax ak moom balay booleeg Ousmane Ba Ndella Madior yow Sénégal ba Sénégal daj ci femme politique yaa toogaxal sa jëkkër yàq sa avenir doom tilimal say doom à jamais donc yow bàyyi ma du ma yow ba ma live lan laa la wax dama la ne Ndella Madior loo muñ vingt sept nga ko mën muñ léegi war nga ko muñ pour ce qui reste mais li nga def nii baaxul pour say doom loolu laa la wax je t'ai conseillé et je t'avais dit dans ce live que je t'adorais je t'aimais bien waaye bu fi wëlbatu naan dama la fondé Ndella du ma du ma sa fans j'ai jamais dit que dama la fondé la man ni ma teg jigéenu sénégalaise yëpp partagé leen ma vidéo parce que aw ma jotu partagé fa ma teg jigéenu sénégalaise yëpp laa wax foofu laa la teg mooy ni que tant que tu ne déconnes tant que tu ne mens à mon sujet dama lay soutenir dama lay jàppale loo dugg ma dugg ci jàppale la. man dee la maajoo bu ma fenal yaa ngi ma fenal ñaari fen yu rëy te ndee la yow yaa am sa complexe bopp parce que ndee la maajoo Sénégal xam nga lu ñuy wax man duma diw loolu c'est pas humiliant si tu trouves que c'est humiliant c'est parce que tu as un problème de complexe moi je t'ai dit tout simplement tu t'es humilié tu t'es fait humilier c'est devant le Sénégal tout entier ndee la tu t'es fait humilier kooku dafa bind ne yow taalibeem nga dama ko dul may bës moom parce que moom dossier koo doo ba toog ci kawam sëlëm ko amatoo looy waxateeg moom pare naa ci dossier moom parce que man léegi dossier bu nekk en justice lu may wax ci moom kooku maag moom on est en devant moom ak équipe bam donc amatuma lu may wax ci ñoom mais yow ndee la maajoor mii ñu ruux ba nga ñëw taxaw nag ne da ngay jàkkaarloog Françoise Hélène Gueye ruux nga siiru gënoo ma doon séeréer dàkkoo ma xeex dàkkoo wax te ëppoo doole xaw koy jënd xopp ma ma kan ngay jënd waaye du Françoise Hélène mii xolal sa dara laa namul sa dara dara dara ndee la maa laa namul ñëw naa Sénégal ba jóge Sénégal lijjantiwuma sax sa numéro téléphone maa ngi woon sa numéro téléphone woowuma la donc namuma sa dara namuma sa dara c'est pas physiquement c'est pas matériel Ndella Madior bàyyil fen bàyyil fen Ndella Madior yow mbaa di kon yow Sada nii nga ko fenalee yow kon nii nga duulalee Sada Kane man danga ma fenal man Ousmane Ba benn yoon laa wax ak moom téléphone te Ousmane Ba ci direct tam laa dugg muy live ma dugg live live ma dugg deuxième chose Ousmane Sonko bi ngay wax yow yaa ñemee yàlla man ak joor ñoo attaqué Ousmane Sonko nga ni boulevard bi yaatu na naa ci dugg nga ni ci suux gars yi képp la mais si t'as pas le mental qu'il faut pour ce combat reste dans tes télé parce que xeex bi mental la laaj n'est pas FFJ n'importe qui n'est pas FFJ ku bëgg et tu dis que tu veux être présidente yow kan moo lay def présidente yow ngay toog fi man man ngay man ngay fenal man ngay sosal man ndee la maa man duma ñooñu ngay sosal ñu noppi de ay ñoom Koddu Mouhamed Cissé ay ñoom Maman Dieye ay ñeneen ak ñeneen yooyu nga sosal saadakan ak yooyu du man de nga gis ni damaa am dëj dama am dëj ba léegi maa ngi toog sama coin di moon sama mbokk rek nga ne naa dugg léegi yow ndee la koo mën a laayval yow ak koo mën a xoxatal yow la ma mën danga koo mën ci réseaux sociaux yow la tax nga ñëw di ma raamal yow kan moo raamal moromam kan moo dugg ci live mu ñu koy dugal Ndella Madior dama ne nga réglé nga wàññi sa gàllaaj ñu jam la man duma Ousmane Sonko man duma Sada kan man duma ko euh, keneen tu na ma tudd euh, ay code moo xam ne si sax ya ngay fenal ñu noppi man boo ma fenalee damay taxaw fii takk la yaxu golo man FJ la tudd man juddoo jaxaw kanda jaxaw caali ok self made woman duma doomu diw ci ci arrête duma sa morom xam nga ni respect bi ma nit ñi jox joxuñu la un quart ak loo mënti am nag te dugguma si dossier Xadafi bu ma sonal bu ma jéem a fontoo de la nga mën suma ko la nga ñemee yow nanga nangoo def su ma ko nangoon def man du ma du ay rajo yu ndaw laay ubbantu fenkat dañ koy takkal yaxu golo waxu golo laay ñëw nii takkal la yow Ndella Madior ndeke fankat nga ndeke yow koo xulool yaa ko tooñ man moom dañ may sosal rek duñ ma ci fekk mukk képp ku ma fenal defal nga ku ma nga teg mais yow danga ma fenal en direct ma ñëw léegi di ko lijjanti parce que dangay yaakaar ni dama nekk ci dëj léegi nga ciy profitoo man dama am culture Allemagne dangay am dëj dem def sa dëj pare liggéey ji te loolu laa gëm ni moo war a am Sénégal nga am malade nga feebar feebar bu ndaw ay soj nga daan say garab dem liggéeyi mentalité boobu laa gëm man Ndella Madior mënoo ma duulal ko ëppul mbokk mënoo ko duulal te la ma man xajul ci yow musuma yónni nit yow da xanaa yow fan la fan yële maa la sobe yow fan yële gars yi dañ la bëggoon wàccee ay alxatiir ba nga ñu defee sa coup boobu ba nga ñu defee sa coup bu salte boobu nga xam ni yow ci appel à la à l'unité la paix et tu me fais un coup tu me tu je t'appelle tu tu négocier euh, sa sa sa say bagage fële ñëw daal di ne waaye ñoom ñëpp ciy topp waaye Françoise yow foog nga ni yow mën nga ma cap tu penses que tu capable de me chaperonner tu penses que tu as pour dox sama mayin man Françoise Hélène Gaye Ndella Ndella yaay kan kii tu es Ndella yaay kan yaay kan yaay kan tu kii ak loo am. ba léegi di wut ak ñaata nit nga nga nga ñaata bon nga toog fayul bés bu ne tu es devant de la scène pour des faits peu louables yaay taxaw di ma ay yu ñàkk fayda yaa ñàkk fayda yow fayda ci yow la fekkee baax kii tii ndee la yow yaay kan ba yow yaay taxaw di saaga yaay saaga yow daal yow yaay kan nga mel ni benn mouche ku ku yaa leen je sais ñu mën a ànd ñoo mën a ànd